ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci juróom-ñaari téeméer ak ñetti test yi ñu def juróom benn fukk ak juróom ñeent ñoo ci positif maanaam juróom benn fukk ak ñetti cas contact juróom benn cas yoo xam ne ci transmission communautaire bi lañuy jóge benn ci Colobane benn ci Mbao benn ci parcelle Assainies benn ci Niayes Thioker benn ci Mbacké ak benn ci Nioro ci malade yi ñu hospitalisé fukk ak ñeent wër nañu ci dina ñu génn ci waxtu yi ci kanam ci suñu structure yi nga xam ne foofu la ñuy def malaat yi nekk réanimation benn cas grave amul ci structure yooyu yeneen malaat yi nga xam ne ñu ngi leen hospitalisé ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko bés bu njëkk bi Sénégal amee benn ka wàññi nañu juróom benn téeméer ak fukk ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn wër nañu ci juróom-ñaar ñàkk ci seen bakken kenn ki ñu évacué ko ci dëkkam mu des ci suñu structure yi ñu leen di faj ñetti téeméer ak fanweeri malaat yoo xam ne ñu ngi leen hospitalisé